ma gars yi ziar ziaratan mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey dañu déplacé waa ñëw fii ci grande Dakar NGB benn tali ñaari tali seen émission Wajal combat c'est une émission victoire après combat sama gars yi kan mo ci victoire ñu ne sa bawal kan mo jog ci jëm ci victoire ñu ne wat sa bawal nek pensionnaire de l'école de Doudou le poulain de coach Mbaye Faye mom la ñëw jël ci tay fas yéene ak mom waxtaan waxtaan ak mom ci carrière am fi mu jóge fi mu jaar fi mu toll fi mu jëm kan moy sa bawal victoire bi mu jóge nan la ko dundé combat bi mu jëm nan la koy waajalee et tout et tout et tout sama gars yi ci Grand Dakar tey une émission victoire après combat C'est une émission wajal combat sa bawal école de Doudou Baka Sarr sama invité rakk lay lay maa ngi sant bu baax maa ngi nuyu monde entier di nuyu àdduna di nuyu Sénégal yëpp di nuyu waa NCB bi di nuyu waa koñ bàyyuma kenn waa Dóobaal bi di mbokk yi sama mbokk bool bool yëpp waaw. loolooy euh, maa ngi nuy waa écurie Doudou Bakassar yëpp waaw di nuyu suñu kos Mbaye Faye waaw di nuyu Père Diakhaté ñoom Pek bàyyuma ñëpp di nuyu lu ko daggee si ñoom boy Dakar ñoom yankaaw ñëpp nyep bayam kenn ñuy sama gaay yëpp sama boy nekk si bi ay ñoom ndigal ñoom falwa Fall waa ñoom jiya jaamu gaay yëpp maa leen nuyu bu baax di leen nuyu di leen jox kan mooy Sabawal ah Sabawal benn xale la rek bu teg bëtam fenn bëgg dara si làmb di si góor-góor di si bay waaram quoi waaw laaj ne bol bol waaw bawol bawol laa pire et dire pierre si ne sa bopp man maay saabaw waaw wuyoo wuyoo ban ban dëkk nga jóge man maa ngi joge dekk nan saté côté nah, Baba grâce wa waaw foofu laa jógee waaw ma ñëw Dakar fii wa fofu la commencé di mbapat wa mbapat na foofu waaw wa def na fa résultat ba nga ba sax wa kon toj nga mbapat wa bay fa sama war bu baax hmm. wa fofu taxaw mom zone Baba grâce kër sambakan hmm. fo taxaw boo sa bol waaw ñu jàpp solo, wah waaw ñu jàpp sa loxo addi la ba si man loolu moom yàlla def na ko ay tournoi nga daan bëri wala ay combat nommé waaw bëri naa ay combat nommé wante tournoi yi nag moo ëpp quoi waaw ndax man waaw bëri na bëri na trop ndax man dama bëgg compétir hmm. ba léegi nii sax damay compétir waaw ba nii amul combat da ngay dem compétir mumut combat damay dem compétir waaw si mbapat kan nga ñëw Dakar Dakar maa fi ñëw ma xool 2012 2012 laa ñëw Dakar waaw boobu maa ngi nekk xale sama grand waaw waaw moo jàpp sama loxo andi ma mhm. waaw booba xale bu ndaw laa maa ngi nekk tout tànk noiro signor waaw waaw waaw di ko nuyu au passage di di jàpp lu bëree bëri hmm. su ma amee ma xëy du ma gont may lekk ba suur tëdd nelaw waaw loolu dong la masas hmm. waaw di waaj bu baax a sama premier combat maa ngi bëreeg ref 2 ref numéro 2 waaw ref numéro ñaax moom ma daanal la da nga ñaax ma ñaax deuxième nga am kan deuxième combat ma ñëw bëree ak caatu kajoor caatu kajoor borom ma si ndam nga jàpp ko daan waaw ma jàpp ko daan maa ngi am Sall Bawal Sall Bawal non ñu ngi bëreeguñu combat bi taxaw na nii quoi. deux combats nga bëreegul. waaw deux combats laa bëreegul waaw. benn victoire benn défaite. benn défaite waaw. léegi instant bi ngay waajal Zal Bambay numéro 2. Zal Bambay Zal Bambay. Zal Bambay numéro 2 waaw. Zal Bambay numéro 2. numéro 2 a a daje ci ko lijjanti. waaw damay ko confirmer comme ma hmm. bi nga jógee nan nga ko waajal. waaw combat bi entraînement lekk ba suur te dina law ànd ak seen xel mu dal nag ndax sasuñu ma dara bu combat bi taxawee lam grand bi ni ma posal nga dem posal liggéey bi nga demaat. noiro waaw depuis deux mois yoo xam ne dama ko toog xëyuma dem ma dara damay lekk ba jour entraînement fajar ma jóg dem géej su ma ñëwee nelaw ba dix heures onze heures ma dem saal ba su ngoonee ma dem contact waaw loolu dong la ma sasal noonu ko jàppee noonu laa ko jàppee ba jour si ba jour booy mobilisé ñëw def la am doole ñu dem dem daan ñibbisi dem bëree daan ñibbisi waaw waaw hmm. loolu la mais préparation bi jaar na yoon. waaw préparation bi waaw jaar na yoon. amoo woon problème soutien problème financièrement problème xaalis. jàppale yi moom des na quoi waaw jàppale yi des na waaw jàppale yi des na dañuy woote rek xam nga amaat nañ combat. di woo autorité yi nekk benn tali NCB bi di woo ñëpp pour ñëw teg ñu loxo dina képp ku nekk si koñ bi te xam ne yaa ñu tane tamit te mën nga see mën a jàpp ñu ngi lay woo nga ñëw jàpp si bu baax a baax waaw day woo ñëpp bëgg naa loolu bu jàllee tamit damay woo suñu président comme dra tamit dama koy dellu ko woo lu bëri moom da siy jàpp Moussa Ndiaye sa combat su ma amee combat même Bawal ak Dakar fépp la yemale su ma amee combat day ñëw teg si loxo dama koy sant di ko gërëm am ma fayam waaw moom da si jàpp lu bëree bëri day yëkkati xaalis may ma waaw jëndal booy ay billets ñu dem stade. jàppale boobu noonu moom nga soxla jàppale boobu laa soxla soxla naa bu ma amee combat ñu jënd ay billets may man na am a dem stade man la si def si garaawul. supporter waaw supporter yi. nañ leen may ay ñu mën a déplacé wu feesal stade. waaw loolu donc moo. lu des yow di nga ko seere. ko seere. biir géew yow mën naa ko seere ndax man yaakaar naa man dama jàng bëri man jànge naa côté bu ni bu may nekk xale tout tànk daan dem di fooyee mbapat di bëri di takk sama ngemb gaay di ma yóbbu may dem di bëri di daan waaw kon lam moom jaaxal ñu si benn côté adversaire ak ñu mën a mel bu ñëwee ñun dañuy def li ñu war waa kay noonu la fa demee d'accord léegi nag nga jóge ci combat rek war a demaat ci combat waaw ñun ay mbëri ndaw lan waruñoo xaar ndax mbëri ndaw dañuy wax chaque jour daa war di pare waaw keñ amul préparé chaque jour da nga see war di nekk waroo nekk ñu naan ah mbër amoo combat da ngay nooyal wala dara soo mut combat da nga war dem entraînement soo ba mel ni lu ma xamul yaa mut combat da war dem entraînement toujours toujours loolu lañ waa ndax ñun moo tax ba yàq suñu moo ñu yàqal lépp laam moo ñu yàqal lépp motax kon dañ ko wara jox gëddam ba mat sax sa histoire lamb fa la tamalé lan mo la duggal ci bëri sama histoire lamb man dama doon ñëw bi ma ñëw kee ñëw Dakar mu ñëw fekk sama mag di bëri man dama fekk ngemb li ci kër gi manam man la ko mëna waxé waaw waaye ne même lu tax ma bëgg lamb ma ngi nuyu sama mag noaro ak ñoom rajaxe sa bawal sama trondo dama ñëw Dakar nek xalé di jang métier ma gis ñi bëré di dem stade di bëré di compétir may sacc di leen top bo sama mag bi sax bo maa jang mi sama patron sax dama doon ay bu ma dem ba dama non sacc di len top di dem entraînement ma len top suñu dem entraînement ma sacc dem di def lool di leen seetaan wa keñ di len def lool di def lool ba ben jour ñom man ni damay dem bari man damay nekk mbar force mag dañuy bari may gis wa keñ bu lislaam bi duguma ni nga tambalé fowé bari wa lool la tambalé fowé mais kañ la mujj doon deug xam nga da nga nan fowé mais kañ nga dem ba japp ni li doon ay foo léegi deug la jour bu ma njëkkee ni man maa ngi bëri waa war a bëri maa ngi amoon benn bapat ba man Baba Grass ma dem bëri ji jour boobu may bëree ji ma demee final ñi ma ma ko andi suñu kër quoi ndax dama yaakaar ni sama papa ma ñëwee damay door, ndax dañ doon ayee bëri ndax dama wax naan yéen ñaar yëpp mënu leen nekk mbër si kër gi dina ayee quoi ni ma yow demal nga léegi liggéey bul bëri ak yooyu noonu waaw boobu dama ko bëgg damay sàcc di bëri ji waa kenn damay sàcc di bëri ji waaye mu ànd ak booy bëri dam doon wax boy dem len ba boy jiitu ma bu ñu ma top seen ginaaw daan gën dem suma ma compétition bari di laqatu ba ben instant ben événement ñëw tabaski jour bobu yaakaar naa tabaski bobu ma ngi bëree ñetti combat la bëree si ben événement ma ngi bëree gandal ak njaabi ak euh, ben ma tabaski trois combat yalla may ma yëpp victoire bobu nak si la ma bi commencé baye nak bëree daan daan waa kay ma daan ñetti combat baa te yëpp maanaam si tay la su waa kay semaine semaine tabaski bi la cinq la yëpp cinq jours tabaski bi la nga daan daan daanaat ma daan ñetti combat yëpp kii waa kay mu mujj ba ma nag waxatuma dara libéré la waa kay maanaam daal mu euh, mu ñaanal la diggante doom ak wayjur waa kay may dem dëkk waaw di bëre ji waaw ba léegi nii te tay lañ ko gën a bëgg tamit di woo gaay yi jàpp si bu baax a baax kan nga caat kajoor caat kajoor nga mujjee daal waaw mais est-ce que xam nga ne daal bambay mi nga jël daal bambay daal bambay booy yi booy yi booy yi naa la xamal benn affaire xam nga ne gis nga certificat médical dafa xew mën nga yàq combat bi yàq noiro mën ngeen teg combine fii nga jékki-jékki ne ah, sama bopp day metti rek nga yóbbu dugal certificat médical après combat bi yàqu parce que booy bi ma gis bu dee daal bambay mi ma gis xam nga yow da ngaa da ngaa yaru yow doo si gis sax xool nit mais kee bandi salte la nit ku bon la baaxul ci dëkk baaxul ci àll booy boobu ah non Zalba Mbaye numéro 2 Zalba Mbaye numéro 1 moo koy indi jàpp daan xam jàpp daan ñibbi jàpp daan ñibbi kooku hmm, maanaam daal xaw ma naa la ko wax kooku bandi géew la Zalba Mbaye numéro moom nga cab ni instant. non moom ma lu bëriwul si làmb maanaam boo nekkee si koñ bi man nga yaru waa diggéew ba amul yaru de. foofu teg fa jeexal la maanaam loo fa yóbbu doo fa fekk waaw kenn da ngay ñëw andaali sa fit wan lii da mën a confirmer jëli ko. waaw mais mais mais eh, fi eh, fi nga dal moo baax. mais man dama lay wax lu si laam man maam man képp koo xam ne góor nga rek taxaw damay gëm ni kii dama la fay jëlee. sa moromu góor boo jàkkaarloo ci biir géew da ngay gëm ne da nga ko fiy jëlee. man du ma tiit du ma ragal billaahi. am ma tiitukaay. man foo teg loolu ci sa mën a bëre wala ci sa ñemi entraînement wala ci sa am fit wala ci sa gàllaaj foo teg loolu. maanaam man dama mën bëri dama mën bëri te entraînement li si war dama koy def. da nga mën bëri ba xam ko. waaw kay dama mën bëri ba xam ne man dama mën bëri waaw dama koy def. ba tax na gëm nga ne sa morom bu taxaw sa kanam da nga ko naan sa waay mu ne la naam nga ne ko xajal ma ma jàll. noonu la fay demee. léegi nag Sall Bambey da lay xajal nga jàll. non Sall Bambey day xaar. day xaar ba jamono neex lu bëree bëri. bu ardinee fiir man damay bëri damay xeex damay bëri damay daan. combat bi su ne Mour Baye Fall la ka naan la vingt vingt mai. mois mois de mai bi. waaw si la woo. waaw si nga war a bëri. si la war a bëri waaw li waa ji naan dootoo ko defati dootoo ko defati non ñun buñu xaar amuñu xaar ñun buñ toogee ay mbëri ndaw lan buñ toogee di xaar combat saison bi ñu si ay benn combat wala ay ay deux combat non làmb ji amul lu yomb waaw amul lu yomb mais am na lu tane làmb ji amul lu yomb mais lu tane am na non amul lu yomb wala bul yàq sa carrière xalaatuma loolu bu la zal ne kërtim tee booy di nga xam ne lépp boo waxee ñu naan la ay NGB ay ñun benn ñaari te tous. ay mbër fi nekk fi nekk ay jàmbaar ñun boo ñëwee suñu giri non boo ñëw suñu giri Dakar ay cité bu sa ñëw suñu nga xool booy yi gën a ndaw laa la wax billaay bu boo leen téyee nga xam ne ñu gënoon mën bëri wane yàlla suñu giri ñëwal suñu giri nga gis booy tuuti ku gën a laa la wax bu la téyee nga xam ne kii daa mën man ñaari bool bool man sax sama yoon nekku ci parce que ñaari séeréer fu ñu mbëkkante yoonu pël bi nekku ci dama leen di bàyyi ngeen bëkkante jour ji ma téye sama micro attention Zal Bambay numéro 2 à gauche Sa euh, euh, Sa Bawol a droite arbitre bi leen na génn seen diggante Bawol Bawol bi dóor na ko Bawol Bawol bi fayu na ñaari Bawol la ñu ngi dóorante kuy daan kuy daan ngeen li ca waaw boobaa tamit ñaari Bawol Bawol la wante tamit xam nga làmm moom bu toogee ni ñu suñu bëri ñu Bawol Bawol suñu biir maanaam da ngay toog ba yow ma adversaire dina la jafe hmm. ndax mënoo toog ni doo bëree ak booy fi nekk yëpp kon ñun dañoo war a bëri suñu biir dëgg man dama foogoon yéen waa Bawol yéen waa waa Bawol boo loolu 100 pour cent Bawol bi dëgg la waaye loolu mbëri mag yi ñoo ko mën waaw ñun mbëri ndaw ñooy mag doon mbëri ñu dem ba nekk ay mbëri mag soo ko mën a toog ni duñ bëri suñu biir waaw instant bi ñu nekk ay mbëri ndaw nii nii nii force ñu laale mënuñu ñaax waaw mbëri fi nekk si Bawol Bawol yëpp yëpp bu fekkee duñ bëri kon lamb lu neex waaw dëgg la nag ki nga bokkal secteur nga xam ne yéen bokk benn secteur nga NCB bi yéen bokk fii nekk fi kooku mën ngeen a bañ a bëri waaw kooku moom waaw yéen a bokk koñ kooku mën leen bëri waaw kooku mu kooku mu kooku mun leen bëri. à part ça ci des yow sa adversaire buñ ne la kii sa potentiel adversaire la da ngay bëri. damay bëri ak moom. contact nga jógee. contact jamono yi may wax ak yow fu nii deux séances laay liggéey. par jour matin soir. matinal damay dem salle. waaw ngoon gi ma dem géej entraînement. ngoon nga dem géej. waaw kay. Euh, nekkatu leen fee. waaw écurie ba waaw. ngoon gi ma dem école. contact. waaw jàppale gars yi si instant bi dafa am ñu am ay combat foofu di leen ñaanal. ku mel ni fils de Mbaye Faye dafa am combat. waaw maa ngi ko ñaanal suñu borom may ko ndam. waaw jeex jaam dafa am combat maa ngi ko ñaanal fëgal a tàncee ba bàyyi ko bu ko fëgal a tànc jeex jàmm fi mu jaar baaxul. fëgal a moo mën ñaari yoon jeex jàmm. fëgal a combat ba mu sens. fëgal a laa gis mu wàcc avion bi ne xoolal jeex jàmm daa la bëre daa la jure daa wure baa la jàppee daa duma da ma ne ko yee jeex jàmm am na problème. non jeex combat bi fëgale amul sens ndax moom daal ñëw di neewi rek di funkee ko jóg loolu amul njaay fëgale moo mën gis na laam non non non non jajam tuune la dara jajam day day buuxat daa am sens rek booy boo xam nga gars yi naan sept combat day bu mënu doon bëre amul kon du bëre ay sept combat sept victoire ñëpp bu amee Oh, ndaanaan la bilaay ndaanaan bilaay ndaanaan bilaay ndaanaan la ndaanaan la moo combat cette victoire rek ñu naan fii ndaanaan la ndaanaan moo ko yóbbu fii mu nekk bilaay ndaanaan la ko yóbbu fii mu nekk ñun ñu nekk mu daan daa am sens rek ñun ñu nekk moom xam nañ ko bu baax bilaay hmm. dañ koy ñaanal suñu borom may ko suñu borom may ko ndam rek waa léegi nag jàpp nga ne Cheikh Thiam am na bëri bu daan fëgala fëgala waxuñu loolu kenn waxatu ko bilaay waxatuñu loolu daala wura dëgg bilaay waxatuñu loolu daala juré daala bëri non day fëgala day xaar day xaar fëgala nu mu def daanu nu mu def daanu non nu mu def daan maa ko ba jour ba ba jour ba mais mais fëgal moo ko dàq bëre ah jeex moo dàq bëri fëgal dàq bëri moo ëpp doole jeexjaam moo ëpp doole moo dàq bëri moo ëpp doole lii maa la ko wax da ngaa far rek faruma de lamb laa de lamb nga man noonu laa faralee fëgal bu ngor parce yàlla na ko suñu may ndam mm. ak fekke ak tal dara bañ koo daal ba jour ba mu ñëw daanu mu ñëw daanu rek ngeen déplacé wu jóge fii NGB booy nag mafia mafia kii bi nag mafia mafia jeex jàmm bi ay mafia boobu macha mafia boobu booy beneen affaire la booy waaw booy moom dañ si jàpp baax dañu mobiliser dañuy di wax autorité nañ ko gën a jàppale rek waaw ndax mbër mu ndaw daa metti quoi waaw jeex la waaw dëgg la waaw jàppale daa war a yóbbu stade bari na fi yu mag yoo xam ne duñu yóbbu xaaj bi na moom loolu moom suñu borom na nañ commencé di len fay xaliss classe jeex jamu bi classe feugal bu ngor buñ dañ len war fay xaliss parce que bëri ay mbeur yu mag yo xamne dañ di fay xaliss bu bari li jeex jamu di mobiliser xaj bi mënuñ ko mobiliser li feugal bu ngor di mobiliser xaj bi mënuñ ko mobiliser te spectacle bi boy di proposer ci biir lamb amna mbeur yu mag yo xamne dañ ko def ñi sen jour lamb dañ koy neexal xam nga lamb mom nekk xalé taw do le nga nekk xalé mbolo wuy ci la waaw te suñu borom dogal na ko mbooloo wuyu si na ko kon yàlla na ko yàlla defal jàmm moo am ay combat di am ay ndam supporters yi gën a yokk waaw promoteurs yi di leen fay xaalis weex taal ndax booy échange boo xoolee laam booy ñoo ko téye waaw ñoom ñoo yóbbu ñooy mobiliser stade di duy lu bari kon promoteur yi nañ si gën di waaw nañ si gën di kon daal mais yow yow mi nekk ak jeex jaam écurie gëm nga a jeex jaam pare na waaw loolu moom waaw loolu moo xatuñu ko moom waaw def na li ko war. sa xel dal na. waaw yàlla na ko suñu borom suturaal may ko ndam rek laa koy ñaanal. bu bu bu Saloum amagul combat. waaw Siteu amagul combat yaakaar naa. Boy bari wax boobu mu ba ak bari wax Boy Dakar bari na wax man daal man daal mosuma gis mbër bu bari wax comme Boy Dakar booy boobu. non Dakar booy du ay wax day wax rek. booy ñu muur rek. déedéet moom mooy delloo avance yi. non non booy Dakar booy Dakar ko si delloo jox Dakar moom moo koy delloo. Sabol booy Dakar tàngul. booy Dakar tàngul de day tàng day ñàngu ñàngalu ni ñàngul tàngul man xam naa ko. kooku mooy làmb. mooy Dakar mooy làmb mooy làmb. maanaam kooku mooy làmb ndaanaan am. dul rëyul bu dul rëyul waaye na jom nekk na ndaanaan mën naa a bëri. Boy la daa mën a bëri. waaw mooy làmb xoolal xoolal xoolal carrière am nu mu bëree lépp. yaa ñaata combat def treize combat xam nga. treize combat def. waaw waaw côté yooyu. isa gisaguñ nga mu laal suuf. benn defet par avertissement. a daanaan a ngoog xam nañ mbër mën a bëri Dakar mënul bëri daanaan foofu lay tàmbale waaw hmm. ah, kay Baye Mbaye mi ngi leen di tànc comme d'habitude waaw dañu teg lu metti kay ci peeg Seydou ci peeg waaw leen nuyu au passage di leen teg lu metti entraînement bilaay dañuy teg lu metti waaw lépp bëgg ñu réussir rek boo demee làmb ja mu yomb waaw keñ noonu lay demee sama combat bi passé wu ne ah, peeg dama koy sant bu baax damay teg lu metti moo baax Mbaye waaw moom ma tegaleen sees chaque jour dama doon ñëw foofu xool damay teg lu metti damay mujj ni kii damaa bañ wala dara te du ñu wun noonu résultat wu ne yàlla dama doon entraîné ba noppi contact bu nopp mu ne ma eh kaay ma ñëw. mu taxaloo ma gant ma xeex bu nopp lu la may def loo waaw. waaw gis nga lépp feeñ na nga dem làmb ja rek am ndam. lépp feeñ na entraîneur loolu rek lañ ciy gagné. waaw entraîneur bu poulain mu bëre daan ñu ne sama poulain daan. entraînement rek moo wóor li des lépp day mottali. làmb ji wërngal këpp ban bër mooy sa idole. Euh, man kan mooy sama idol man Modou Lo mooy sama idol. waaw Modou Lo mooy sa idol. mooy sama idol waaw man Modou Lo dama ba ak jom. waa keñ tol tol ni mbëri tol nag. waaye sa bu géew nga xam ne kii ndaanaan wane fula ak jom. billaahi Modou Lo mooy sa idol lamb ji wërngal këpp ban mbër moo fi dàq bëri. man mbër moo fi dàq bëri mu loo moo fi dàq bëri. Modou Lo moo dàq bëri ci làmb ji. moo fi dàq moom moo dàq bëri ci làmb ji waaw. waaw mooy samay dal moom laay topp quoi. mooy samay dal moo dàq bëri ci làmb ji. waaw kay làmb ji wërngal këpp. waaw Modou Lo moo fi dàq bëri question suivante bi làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi dàq xeex. ban moo fi dàq xeex Noiro Junior. Noiro Junior. waaw moo fi dàq xeex Noiro Junior moo dàq xeex ci làmb ji moo fi dàq xeex xeexkat la. day raag de. <laughs> Seydou man damaa ragal defet man bëgguma defet. day raag de kañu rayante la lay wax mu ndaw ñam na. day la lay wax. sa waay moo ko génnee dem na Espagne tukki na. la lay wax de moom. lay dóor yii gauche gauche gauche yooyu noonu. waaw la lay wax la fa demee noonu man la. noonu fay demee kay. ah kon benn instant daal Noiro Junior moom moo dàq xeex ci làmb ji. moo dàq raag waaw. Hmm. la question suivante bi làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi gën a ñeme entraînement waaw gars yi moom dañuy entraîné waaw. yow kan ban mbër gëna naaw ci ñi entraîné. man maa gëna ñi ñeme entraînement. non yow bokkul question yi. ban mbër nga gën ci ñi entraînement. ban mbër la gëna naaw naw ci ñeme entraînement. Yankaw. Yankaw Junior. Nah, Yankaw Junior. Yankaw Junior bu école de Doudou Bakassar mo gëna ñëmi entraînement ci lamb waaw lu tax nga jox ndax peut-être man damay and ak mom lu bëri entraînement. wante du daw quoi. du daw entraînement jambar la question suivante bi lamb ji wërngal këpp ban mbeur mo fi ëpp fit. kan mo fi fit. mbër bi ëpp fit ci làmb ji laa bëgg a xam kan. kooku la. Balla Gaye numéro 2. waaw Omar Sakho moo ëpp fit ci làmb ji. am na fit trop fit gaynde la waaw. lu tax nga jox am fit. ndax bu waa kañ bu làmb arbitre ne hmm. moom amul lu muy xalaat di arrêté yow wax dëgg yàlla waaw. moo ëpp fit ci làmb ji question suivante bi làmb ji wërngal këpp ba ban moo fi dàq fecc. kan moo fi dàq fecc. Siteu. yalmin bi yalmin bi moom laa li mu fecc dama neex waa waaw baakom moo dàq fecc la waaw dama yëngal baakom daf la neex dama yëngal waaw question suivante bi laa mujj wërngal këpp ban mbër moo fi gën a moo fi gën a yaru caatu yoof waaw gis naa fi si ab moo gën a yaru ci làmb waaw gis naa yaram waaw gis yaram waaw ak tegginam tegginam waaw naw na ko naw ci yaram ak tegginam waaw question suivante bi nag làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi gën a réew nag mbër bi gën a réew ci làmb ji laa bëgg xam bu booy dakaar dafa réew ba xamul fu muy taxaw ah, kii kii nu mu tuddati Cité bu Saalum dafa réew ba xamul fu muy taxaw Yankaw Junior kenn gënu koo réew noiro bu mag noiro bu mag nee ko xaw ma léegi blanco nga xaw ma xaw ma lu muy nuru noonu noiroo tamit réew na ba xamul fu muy taxaw DJ ku ko gën a réew amul booy mu lomp ay NGB dafa bari ay mbër yu réew. NGB bu mu bëri mu réew NGB booy yëpp ñoo yaru a yaru. de mbër bi gën a réew ci làmb ji laa la laaj boo paree après gis ma bu mu bëri mu réew. làmb ji wax dëgg yàlla gis ma bu mu bëri mu réew booy yëpp a yaru. non mbër mbëri réewuñu. dafa mbër réewul. Liss Ndiago euh, Laurent Ndiago réewul Bou Siteu réewul Bou Siteu yaa ngi yàq sama émission man sama niveau dafa dépassé lii loolu du réewande non danoo neex rek loolu neex la rek ah. waaw ba tey nangu naa mbër bi gën a réew ci làmb ji man la garaaw waaw xale nag ma ne da réew nag man moom naa gis nga ni nga yaroo nii man xam naa noonu nga réewee man xam naa ko gis des fois gis mbër bu yaru fekk dafa réew ba xamul fu muy taxaw nice na la ma la xoolee naa booy bi ni mu yaroo noonu la réewee waaw ah, damay nuyuwaale. bu nuyoo bu nuyoo ah, bal ma nuyu man waaw non rew réew garaaw nangu naa waaw man laa waaw man léegi sa réewante na nga koy jaay booy ci biir géew waaw booy si biir géew bi fekk leen teg leen lu metti nga wan leen eh, yàlla gën a réew xale baa ngi ñëw xajal leen ma lamb ji am na gan lamb ji na gan waaw ñëw na waaw booy booy yëppay daw waaw bal ba si kanam nga xool booy booy am booy ba tey ci question réponse mën a bëri am fit ñeme entraînement am gàllaaj ban moo ci solo ci làmb non mën a bëre moo ëpp solo islam ak ak waaw moo jiitu man bëre waaw mooy pee mooy pee kon yow ba mbër bu mën a bëri boo ko gisee da nga koy naw waaw keñ man mbër bu mën bëri moo ko gisee dama koy naw nga war a bëri ji sa jour combat ñu woo la téléphone ne la saa bawal dafa am règlement bu bees bu wàcc ñu ne la yow sa bëre sa fit sa entraînement sa gàllaaj ñeent yi ñett yi mooy dem làmb ja benn bi fi nga koy bàyyi wala doo bëri ban ngay bàyyi benn bi fi nga koy bàyyi ah bëri bi euh, fit bi entraînement bi gàllaaj entraînement bi fit bi entraînement bi non bëri bi moom dama koy yóbbaale moom ban ngay bàyyi sa bëre sa fit sa entraînement sa gàllaaj lan ngay bàyyi ah naa fi bàyyi gàllaaj gi rek garaaw laaj ngay bàyyi nga yóbbu bëre bi fit bi entraînement bi entraînement bi nga bàyyi gàllaaj gi waaw sa émission non noiro bi la naa fi bàyyi gàllaaj bi entraînement bi mooy lépp ak bëre bi nga yóbbu bëre fit entraînement nga bàyyi gàllaaj bilaay yi bu demee doo tiit gàllaaj ngay bàyyi gàllaaj bi gàllaaj day mottali tax mënoo bàyyi bëre bi lu tax mënoo bàyyi non bëre bi mënu fa bàyyi bëre bi mooy lépp mooy lépp mooy lépp tax lu tax mënoo bàyyi entraînement bi entraînement bi moom fii ci la bokk mooy lépp mooy lépp waaw lu tax mënoo bàyyi fit bi fit boo ko bàyyee musiba dal la hmm. boo ko bàyyee boo demee boobu gàllaaj ngay bàyyi gàllaaj bi laa fi baax ba tey ci question réponse ban combat mo la gëna marqué ci lamb bi nga dalé seetaan lamb tay ban combat nga dem estat seetaan ko wala nga toog jàkkaarloog télé bi seetaan ko mu marqué la ba mënoo ko fàtte. ban combat. wa combat ma gën marqué mooy maa ngi seetaan benn combat noiro. noiro mi bëree fee. fële wala. combat boobu li ma gën a marqué si làmb waaw daana jël bu rëy ba daana mel ni mel ni mel ni mel ni kuy root noonu gën a marqué si làmb ci la bokk waaw kay parce que tamit guddul taa yu duggee ci biir géew mu ñëw daan bëree suur boobu taas suur boobu kooku dafa njool si kaw nekk séant loos ko waaw loo ko loos ko billaahi ñëpp bu ñëwee booy ñun ñu toogoon foofu yëpp ñun buñ simeekoo bu boo sawaay buñ simeekoo daw ñun ñëpp danoo danoo découragé mu ñëw bëree moom jàpp ko daan ko waaw boobu mu la ma gën a yow ban victoire mo la gëna a marqué sa carrière yow ban victoire mo la gëna a marqué sa carrière mbapat ba victoire bi la gëna neex sama carrière sama mbapat sama suru combat loolu yagul dara jamono passé la dama ñëwon ben mbapat keur sa mbakan sur boobu may ñëw ma ngi doon bëreeg boy bu dëkk ngangu ne ñaari ñoom ñaar ñaar ñaari boy dëkk ngangu ne ñu koy wax ref kee nu mu tuddati ndongolo jour bobu dama ñëw ci mbapat bi mbapat bi doon daw 15 jours ma joge Dakar fi ñew dekk ba boy wo ma amna ma na benn booy bu nekk fi de mi ngi sonal boy dan na boy yep dan na boy yep te yow lan yaaka yow rek lan yaaka ne yow yaa fi man dan ma dadi di ñu wo ma telephone afrika mo ma telephone ma ko ñu wo passage ma dadi pass ma dadi tak sun suñu dem bi ma ba pat bi daw ma beure premier tirage deuxième tirage troisième tirage ñu beure quatrième tirage ñu dajé dem finalement bi ñu dajee demi-finale ñëpp dañ damay daan wala bu ne fii benn song laa ko def. benn voyage. benn voyage daa ko def. après mu jeex mu jeex. nga daan ko jël bu rëy. daan ko jël moom la gën a neex sa carrière. moom ma gën a neex sama carrière. ban defet moo la gën a métti sa carrière. ban defet moom ma gën a métti sama carrière. jour bi may njëkkee daan si làmb. boobu maa ngi fooy làmb quoi. te hmm, première defet. tournoi la woon. ndeysaan. Massa ok. Tidiane Faye numéro 2. moom ma njëkk daan si làmb. ndeysaan. ah bon man làmb defuma ko woon. léegi waa foo laa ko defoon daal waaw dama doon def tournoi di bëre à jour boobu bu ma daanee dama seetlu suñu booy yëpp dañ doon jooy te man bi ma jógee dama doon ree waaw bi ma jógee damaa gis booy di jooy ma ñibbee ba kër ga man man mii kon foo wóor waaw keñ man man mii nag sama booy maa ngi leen jaral ba ñuy jooy jour boobu benn booy Fallou Ndiaye maa ngi koy nuyu ci maxa la dëkk jour boobu ci maxa maa ngi koy nuyu au jour boobu dama gis muy jooy jooy métti te moom kii la ko ma xam ne kii la ko tax la jooy di caaxaan. booboo a métti sa moom ma gën a métti sama laam. ma génn foofu ba tey ci question réponse ma dugg sa vie privée da ngay seetaan football football. non football moom ma si moom. li woote noonu waaw. équipe nationale du Sénégal limal ma 5 joueurs équipe nationale Sénégal. waaw 5 joueurs mën naa ko si lim Sadio Mané. Kalidou Koulibaly. Euh, Cheikh Kouyaté. Kouyaté. Euh, Idrissa Gana Gueye. Pape Gueye. génn na kan mooy sa joueur àdduna wëngal képp kan mooy sa kan mooy sama joueur man Pape Gueye mooy sama joueur waaw mooy sama bi nekk waaw ndax xadar la moom daanaan la quoi waaw keeñ mooy sama joueur ba tey ci question réponse comédien sénégalais yi kan mooy sa comédien préféré kan mooy sama comédien jogay seen waaw dama koy seetaan di ree waa keeñ di ree rek waykat yi kan mooy sa waykat Sénégal fi kuy way nga kontaan n'est-ce pas sama waykat moom Papa Thione laa suivre lu bari moom waaw waaw waaw keñ dama koy dama dama koy déglu lu bari waaw tey ci question réponse su ma la laajoon question de coob lan mooy sa plat préféré coob waaw dama bëgg cere de moom dama ko bëgg baal baal laa de xoolal daa tudd cere rek xoolal noonu xoolal daa tudd cere rek commencé signe quoi nga nga senti kii xol bi sedd na ndeysaan ndeysaan du ma ñëwee ma demee village sax maire xam na ko. su ma ñëwee cere rek. maire na loolu. cere rek boo ñëwee village xam ne sama doom ñëw na. sama doom ñëw na cere rek waaw danaa leen danaa leen kër ku fi xëy toog na nga toog guddee na nga toog. kon daal benn instant fan si supporter yi képp ku invité Sa Baol préparé ko. cere bu baax. ba tey ci question réponse fan moo la gën a neex ci Sénégal. Sénégal fan moo ma gën a neex waaw Bawol rek. bawol waaw am ci Sénégal bawol moom ko dàq moo nga ne saa bawol waaw fier d'être bawol fier d'être bawol ba tey ci question réponse nii may wax ak yow boo doon tukki ban réew dem ban réew gën a neex ci àdduna bi ah, bëgg naa faa dem waa Kenya ci kaana yi waa Kenya hmm. rêve dem États-Unis waaw ba tey ci may wax ak yow nga liggéey tekki dal ci alal ju bari loo ci njëkk a def ma liggéeyaan am xaalis waaw looy njëkk a def balaa dara xew damaa dem defar suñu dëkk am naa yéene defar suñu dëkk dafa lépp lu fa war dama koy def. lu fa dara manqué. waaw lu fa manqué dama koy def. waaw noonu la fa demee. noonu la ba tey ci question réponse nii ni may xëy yow nga xëy un jour ñu ne la am nga benn baat ci réew mi loo tere ñu jële ko fi loo fi jële benn baat boo ne lii jële leen ko fi rek ñu jële ko benn baat fekk am loo réew mi xam ne neexul te mënoo ci dara réew mi de instant bii dama fa gis mooy leen rek maanaam ñu bàyyi nit ñi nekk si jàmm quoi ñëpp dem liggéeyu waa ci waaw

ma dund sama at mi loolu ma kontaan bari na de <laughs> bari na bari na trop jël ci benn rek li nga xam ne dañ laa defal dara nga kontaan wala li nga xam ne da nga defal nit dara nga kontaan li nga xam ne da nga defal sa waajur dara nga kontaan wala sa xarit moo nga defal dara nga kontaan wala. ah sama waajur moom wax dëgg yàlla dun moom. chaque jour ñu def man loo xam ne damay kontaan moom waaw ndax léegi-léeg ma nekk si ay problème yoo xam ne moom waaw da ngay da ngay xëy maire bi jox la dara wala ñu génn la foo xam ne foo mën a jaar di nga kontaan moom. ban jour moo la gën a métti ci àdduna. ban jour moom a gën a métti si àdduna waaw ah, daanaka àdduna moom bi ñu ay xale lan dundaguñu si benn métti di yooyu xam ne moom waaw ay métti yi ñu sonal moom dundaguñu si wax dëgg. mais mës nga dund métti ci àdduna. métti si àdduna non bëriwul de. waaw mais am na. waaw mais am na. na mës nañ la war wala mës nañ la def lu la métti mës nañ la tuumaal wala mës nañ la fenal wala mës nañ la sosal wala mës man nag ñi may àndal ñëpp wax dëgg yàlla suñu borom dogal na moom duñ ma gisaguma ko ma si def lu ñaaw wala dara moom. Hmm. dëgg yàlla. mbër yi nekk ci kaw mbër yi tey làmb ji nekk au sommet tey làmb ji kan nga ciy rêvé un jour. émission bi ah d' accord ma ne mbër yi nekk ci kaw mbër tey làmb nekk au sommet. kan nga ciy rêvé un jour arbitre sifflé génn seen diggante nga war a bëree moom. bëgg na maa bëree ak gars yëpp dégg yi moom nee na ma trop. ñu teel a am ñu ne si kaw. a am ñu ne waaw Sa Thiès. Sa Thiès waaw bëree moom dama neex waaw keeñ. Hmm. da ngay rêvé bëreeg Sa Thiès. rêvé bëreeg Sa Thiès. xam nga la xam nga lan moo la fa yóbbu. waaw lan moo fa yóbbu mooy entraînement. entraînement waaw ñime lu metti rek. ñime lu metti waaw teg ko ci rek. yaa ngi te maa ngi ci la la yóbbu foofu noonu waaw yaa ngi ci maa ngi ci waaw lay tax un jour nga jàkkaarloog Sa Thiès ci biir géew yaa ngi ci di bëreeg moom waaw loolu maa ngi ci d'accord ba tey dernière question dernière question soo nekkul woon mbër lan ngay nekk soo nekkul woon mbër joueur football ngay nekk boxeur ngay nekk basketteur ngay nekk rappeur ngay nekk waykat ngay nekk wala soo nekkul woon mbër lan ngay nekk su ma nekkul woon mbër moom man maa nekk joueur ndax waaw bëggoon naa ko trop daan naa ko def waaw daan naa ko def dama doon football nee daan lu bëri sax waaw dama doon football retard waaw waaw défense waaw droite droite waaw dama doon fubal nawetaan ba at yi rek passé passé rek dama doon fubal nawetaan waaw suñu booy ñoom mujj ni ma da ngay bi moom da wàññi ak yooyu noonu quoi waaw kay mais boo nekkul woon mbër mënoon nga nekk footballeur rakk ji c'est comme j'ai l'habitude de le dire série di yem ci benn épisode yow c'est la première fois may déplacé wu ñëw seet si la mais xam naa du mujj tey ah. li mën di woon ci question fi laa koy yemale waajalaat leneen lan ngay tàggatoo ñoom ibuli gars yi dëkk ñun dëkkee rafet na trop neex na dama leen nuyu ñoom ñëpp bas maa ngi koy siyaare ñoom ñëpp waa xaalim Seck suñu mbokk Baay Faal di siyaare waa koñ bi lu ma taa waa dibiteur ba dama leen sant bu baax ñoom siñ mul ak moo sama doom nday maa ngi koy siyaar lu bëree bari moom tamit samay combat si sonn lu bëri day jàpp si bépp côté noiro dama koy sant noiro bu mag maa ngi koy sant bu baax waaw kenn sama combat day sonn moom tamit da si jàpp bu bëree bëri ma waa bi ñëpp dañ siy jàpp suñu muudu maa ngi koy sant bu baax da jàpp ma dem ba ma fiyaa kolobaan bi tamit sama gars yi dawakat seret yi maa ngi leen sant bu baax ñoom tamit dañ siy jàpp sama combat bi paase xaalis bëri leen kat jomb ñu ma mbër sëñ ñu dama nga préparé ci nga entraîné lekk bu jour te dina ku mel ne Africa ñoom Kaani gars yëpp ñoom usine waaw ñoom Tabasaar gars yi booy ñoom Lama booy yëpp dañ si jàpp lu bëri ma fiyaa kolobaan bi yëpp ñëpp dañ si jàpp dawakat seret yi dama leen dañ ci jàpp ma leen waat sama combat bi képp koo xam ne ko seret nga di wax ale kor mu fay ak turib maa leen woo ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp si combat bi waaw jàpp si bu baax bu ma tàggoo tamit dem asalem fekk fa waaw commerçant yi foofu ma fay yokkal ma jaay la bi waaw dañ si jàpp ñoom tamit waaw ku mel ni siñ kooku kenn la si man dama ko nuyu au passage ku mel ni jabeel dama koy nuyu ñagas dël dama koy nuyu baax moom tamit waaw dañ si jàpp lu bëree bëri yankaw kooku sama doom doy la maa ngi ko ñaar lu bëri moom tamit sama gars yi ñoom ñëpp dañ si jàpp bool bool yi ma fiyaa Pikine bi Abdou Ngom ñoom ñëpp dañ si jàpp lu bari sama chaque combat dañuy jóge Pikine ñëw seetaan si dañ si jàpp dañuy jël suñu xaaj si dugal maa ngi leen bu baax ñoom tamit dañ si sonn lu bëri su maa ngi koy sant bu baax sama booy moo soxna am nogay maa ngi koy nuyu lu bëree bëri da si jàpp moom tamit ja maa ko jaral lu ne waaw day jël xaalisam du ko def si man chaque jour lu ma nekk maa ngi moom loo koy bu ma amee combat su ma mut combat man ak moom duñ tàqoo waaw Seydou maa ngi nuyu taximaan yi lover yi ak cag-cag yi maa ngi nuyu ñoom ñu bëree bëri lover yi dama leen woo lu bëri sama sax combat dañ siy jàpp booy ay booy ndaw lan dañuy raxas waaw dañuy góorgóorlu waaye sama bu ma amee combat dañ siy jàpp lu bëree bëri waaw sama grand foofu la nekkan waan léegi ñu ngi foofu si station bi lay dóor waaw waa station bi tamit maa ngi leen sant bu baax combat bi jàpp nañ si lu bëree bëri mm-hmm. waaw du wool bool bool yëpp waaw bool bool yi mm-hmm. sama mbokk bool bool dañ si jàpp lu bëri bon su ma osee comme am combat amutuñ jàmm su suñ dëkk paay ak meer dama dem sama sama combat bi dama dem dëkk ba ma demee gis meer man sama yaay ne ma paay da war nga leen sant dañuy sa sa dañuy ñaan fii dañuy di ñaan ma ne ko maa ngi ñëpp di nuyu sama mbokk bool bool yëpp waaw di nuyu yaay di ñaanal suñu borom guddal aw fanam waaw day nu ngoo sonn si ñun ñun buñu ñuy bëre tera yaay moo tax ñoo bëgg a dimbali suñu yaay sama papa maa ngi koy ñaan lu bëri fa mu nekk suñu borom oyofal suuf si kawam ak mboolem julit ak mboolem ku fa fekk waaw di nuyu suñu bokk bool bool yëpp ñi caale njarnu njoobeel gàndal paaleen njaabi di leen di leen nuyu lu bëri waaw kër samba baba grâce monsieur le maire du ma tàggoo di ko nuyuwaat moom tamit da si jàpp lu bëri sama nijaay yuusu tons kooku am fayam moom chaque jour mi ngi ci chaque jour mi ngi ci waaw maa ngi koy nuyu lu bëree bëri moom tamit waaw di wax gars yi nañ ñëw di si jàpp waaw koñ bada maa leen nuyu lu bëri jël loxo bi di ko teg si loxo farm waaw di leen wax waaw seen doom ak ngi nii ñoom tamit waaw ñoom tamit dañuy jàpp suñuy combat lu bëree bëri waaw di nuyu waa marché ngelaw marché babas ñoom aada seen gars yi dañ siy jàpp ñoom tamit sama combat bi dem naa fi jënd ay billet aada faas aada faal VIP maa ngi koy sant bu baax combat bi tamit jàpp na si lu bëri waaw di nuyu waa sa alba ñoom Baye Gueye Ah, waaw kan sama combat dañ si jàpp chaque jour dama ñëw ñaa ma mbër nii la nii la waaw maa ngi maa ngi nii lu bëri ñoom tamit waaw nii NCB bi ma fenn ñaar tali Grand Dakar biscuiterie HLM raay bi ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu képp kuy képp kuy sagoo saa bawal maa ya, ngi lay nuyu lu bëri waaw di leen sant di leen gërëm waaw di wax sama gars yi nañ si faral di jàpp mbër bu ndaw dafa metti léeg-léeg da nga am combat ñëw fii wàcc mu ne yàlla loo reere sax da lay tër kon gars yi war nañ si jàpp lu bëri maa ngi nuyu soxna May da si jàpp lu bëri madame madame Amar maa ngi lay madame Ngom maa ngi lu bëree bëri waaw da si jàppale combat bi damay mu jox añ reer bi waaw da teg jeexal moom tamit waaw léppam da ko def xaalisam bu bëri la si ñàkk kon kooku am ma waaw di ko lu bëree bëri bool bool yi ñoo ñëw jàppale seen doom rafet waaw nañu ñëw sama gars yi mi ngi noonu l' émission tire à sa fin te ñoo ngi woon fii ci NGB seen émission victoire après combat ñëwoon seet si kan ñëwoon seet si kii di Sa Bawal nekk pensionnaire de l' école ba Jules sama gars yi bëri na daan mi ngi waajalaat combat bi amagul dat Zal Bambay Zal Bambay numéro 2 lay bëreel waajal leen loolu sama gars yi mi ngi nii c' est l' espoir. c'est l'un des meilleurs de sa génération l'espoir le poulain du coach Mbaye Faye mi ngi nii kii mooy saabawal mi ngi waajaat bëri na mi ngi waajalaat combat ma leen di joxaat di daje ba beneen yoon ziar ziaraat jaa ngeen jëf sama gars yi